bokk yi seetaan en tv assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yépp liggéey yi ñuy liggéey ci koor gi yépp naafi la ya sarax yaa rukuuc ya sujuud yi tilaawatul qur'aan tafsir alqur'aan yi yàlla na ko yàlla nangu yàlla bu yàlla neenal suñu jëf bi jaay siidu bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu del siwaat nañu niñ ko baaxoo def ci waxtu wi di def tafsir alqur'aan biñ doon def waaye tey tam dañu nekk ci mbir moo xam ne mu am solo xam ngeen ne ku nekk ci weer koor ba koor gi bëgg a jeex am na lu loo war ci koor gi fa tabarakallahu weer wi jàngal nañu lu bari jàngal nañu xiif jàngal nañu mar ba tax na ku mar su ñëwee ci yow walla ku xiif ci ñëwee ci yow di ko mën a jàppale ndax xam nga la lan mooy xiif jàngal nañu itam maandu mooy noppi su ëllëgee itam jàngal nañu euh, mbir moo xam ne euh, yitteeluloo nga noppi ci mooy tarku maala yaani lépp loo xam ne yitteeluloo nga noppi ci jàngal nañu itam déglu loo xam ne euh, lépp loo xam ne daganul nopp bi waru ko déglu ci weeru koor yépp nga yaa ngi ko doon moytu waaye dañu bëgg nga continuer ko ndax jàng nga ko ba pare dañu bëgg itam bët yi danga doon xoolu araam ci weeru koor yépp ñu tere woon la ko walla ñu feddali ko nga ko doon def ah nga bañ ko nga bañ ko def bi weer koor yi jeexee itam na ko continuer mu am jeexit li nga doon def yépp mu am jeexit ci yow moo loolu moo tax yàlla la dina laallakum ngir yéen tattaqun ngeen mën a ragal yàlla euh, lii examen la dañ doon def examen léegi suñu suñu admis ba pare loolu nag war na nekk ci suñu CV yi ak suñu diplôme yi mu ne def def nañu épreuve yi def nañ ko def nañ ko dina feeñ ci suñu jëf waaye su fekkee ne dañu woor ba pare diiran weer koor bi yépp ñu ngi julli ñu ngi woor di julli ci waxtu yi di dem jàkk walla respecté koor gi yépp ni ko yàlla santaane ñu koy def waaye balaa ki bi yoon sax ma xam naa ne yàlla yàlla la yàlla la neexul ñu def yi ñu doon war def waaye sudul woon loolu su dee fukki fan yu mujj yi fi ñuy defee ay leylatul qadr bande annonce yaa ngi dem yi ñu xam ne ñuy dem war a dem Sorano ñu de Grand Théâtre ñu war a dem euh, Cissesse ñu war a dem fu nekk kenn ku nekk ravin ak yo fépp daal ñu ngi doon programme waaye yàlla nak bañ ren ko nga ne mooy yor mbiram de ren nak nee na julli sax yaakaaruma ngeen dem génn génn julli ji waxantuma nag di di di di solu wala di organiser soirée ak yi kon yàlla euh, ku yebo rek di sëriñ cheikh waxoon ne ku yebo rek bàyyi yàlla muy yàlla euh, kon programme yépp mu ngi ci loxol yàlla su ko defee ngi génn ci amul jeexit ci yow kon dafa mel na yow wooroo woon dafa mel ni koo xam ne yaa ngi julli guddeeg bëccëg te julli gi am amul effet ci yow kon dafa mel ne yow jullegoo ndax innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat gis nga julli gu bari dafa yóbbu ñaawu téef nit ki su fekkee ne dangaa soxoroon julli gu bari dina tax loolu deñ su fekkee ne fenkat nga woon julli gu bari dina tax nga bàyyi ko su fekkee ne danga doon mooy yàlla julli gu bari dina tax loolu dem kuy julli nag guddig bëccëg ba mel na julli kaata te yow yaa gën a dëng ñëpp ah kon dafa mel ne julli gi deful ci yow daara weeboon sax nga bañu julli kon fa tabaarakallahu ñoo ngi ci fin bi fin bi nag su ñuy dem ba weer wi di jeex mu des ñaari fan am na ñuy wax loolu am na ñu wax nii ci fukki fan yu mujj yi rek mën nga ko génne mooy zakat muurum koor zakatul fitr mooy azakay muunu muurum koor noonu lañ koy waxe su ko defee képp koo xam ne danga woor ba koor gi jeex danga génne zakat boobu nga joxe ko yaa ngi koy jox nag miskin soo ko amulee nga jox ko faqir Hmm? mooy bopp bu nekk danga koy génnee euh, ñaari kilo am na wax ni ñaari kilo ak liibar am na ñu wax ne ñett euh, ñaari kilo la yu manqué liibar ala kulli xaalin motal ko daa walla mu ëpp moo gën mu muy manqué su ko defee nag yaa ngi koy génnee ci li ngeen di dunde li waa réew mi di dunde ci ngeen ci génne mën ngeen ko génne ci meew mën nañ ko génne ci bele mën nañ ko génne ci dugub mën nañ ko génne ci ceeb mën nañ ko génne ci tàndarma waaye mën nañ ci génne ci xaalis lan mooy philosophie bi dañoo bëgg zakatul fitre soo koy génnee danga koy génne ñaari fan balaa ñuy dem ci jullikaay bi am na ñoo xam ne déedéet ala kulli yi na ko génnee balaa ñuy dem ci jullikaay bi ndax soo ko génnewul ba ñu dem ci jullikaay bi ba ñëw daanaka sarax nga am waaye amu azaka mu murum koor te bépp aji woor sa dañ koy aj diggante asmaan ak suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam du du euh, du du yéeg إلا بزكاة الفطر لدول نجا جيني مورم كور كون أزكاي مورم كور كور بو كور جيخ جيني وكو دانا كيو دفولي سانتاني يونت وي عليه الصلاة والسلام دخ موكو فراتال تنيون كون سوكو جيني دنكاي جوخ مسكيني مسكين موكي كيغا خامني امول دنتول دار امول دار سو defay tàllal loxoom pour soog lekk kooku mooy priorité soo ko gisul nag nga jox ko miskin miskin mooy ki nga xam ne amul lu mu denc ba déwén pour dundee ko yooyu itam wax yu bari rot na ci miskin lan mooy miskin ci euh, maliki lan mooy miskin ci shafii koo xam ne war na jël azaka ala kulli xaal yaa ngi koy borom kër gi dina ko génne soxnaam dina ko génnee njabootam ñi ci majeurul majeur majeuragul moo leen di génneel képp koo xam ne nag majeur nga yaa koy génneel ci sa bopp soo ko génnee nga joxe ko ñi ñu ko war a jox waaye nekk ci kër gi am ñoo xam ne dañuy nekk ci kër gi di liggéey waaye paa bi mu ngi ko mooy joxe dépense ci kër gi no paa bi dana ko génne quoi te yooyu yaa ngi yor sa xaalis yow yaa ko war a génneel sa bopp te majeur nga bàyyi paa bi mu génneel ñi nga xam ne majeuragul walla surgo wax boo xam ne sax dundam moo ko war moom moo koy génneel azaka muurum koor muurum koor nag dañ koy génnee même xale bu juddu biig juddu biig liir bu juddu xanaa kooku wóorul waaye dañ koy génnee azakay muurum koor kon su ko defee euh, soo koy génnee ci xaalis soo koy génnee ci xaalis parce que dañ ne philosophie bi mooy dañoo bëgg bésub korité bésub korité ñépp solu ñépp bëgg ñépp dem ci jullikaay bi kenn du wane ne kenn kenn du ñu gis kenn muy yelwaan nga xam ne kii amul moo tax mu yelwaan amul lu mu dundee ci bés bi moo tax mu yelwaan moo tax ñu bëgg ñu génne teel ko génne jox ko seeni borom yi ñoom itam ñu mën a préparer wu comme jullit yépp ba jullikaay bi buñ fa gis kenn ku yelwaan parce que feet la jullit yi bëgguñ ko fa yelwaan ku yelwaan da nga ñàkk da ngay wane ne dama ñàkk te bëgguñu jour boobu kenn wax wane ñàkk waaw léegi nag su fekkee ne dañu jël itam azakay muurum koor yi ñu jël ko jox ko ñiñ ko war a jox pour ñu bañ a yelwaani waaye soo demee ci jullikaay yi da ngay gis ñuy xuus nit ñi di yelwaan góos ak durwaan kon ñoom itam dégguñu wax ji ñi nga xamee ne dañoo génne azaka soo koy génne suñu waxee ne xaalis am na ñu wax ne du doo génne xaalis danga koy génnee ci li ñuy dunde li ñuy dunde ñun lañu lan lañuy ñuy dunde fii ci Sénégal dunde woo ceeb danga ko bay dunde woo ceeb man dama ne dundewuñu ceeb ñun su dee dañuy bay bay ceeb bi du koy dunde wala dugub bi du ko dunde wala gerte gi xam gerte dañ koy bay ñu koy dunde du noonu ceeb bi benn partie bi rek wala wala wala walla wala Fuuta wala wala wala Casamance ñoom ñoo koy bay du réew mi yépp kon lu ñu dunde ñun ñun xaalis la ñu dunde lépp loo soxla dangay ngay jël joxe xaalis nga dem jëndi ko kon ñun xaalis la dunde kon da jël équivalent ceeb bi xam nga soo jëlee ceeb nga jox ko miskin bi nga la nga jox ko miskin bi man ma jël jox ko ceeb keneen jox ko ceeb moom ceeb kese la am te yow yaa ngi yónnee ay ginaar dem nga seeraas ah sa waa kër ñu ngi waaj dégg lu nekk jënd nga ko pour feete yow nga jox ko ceeb xanaa moom bokkul ci feet gi soo ko joxee ceeb bi munu ko togg noonu parce que yow yaa ngi yaa ngi defar yaa ngi defar eh, séeréer yi di wax soosu <laughs> waru séeréer yi soosu yaa ngi defar soosu ah <laughs> te ñoom nanga bëgg ñu togg ceeb jour boobu te ceeb itam xanaa dëwlin a koy togg xanaa ndugg dina ci am xanaa leneen leneen ak dina am ba ba ba mu ba mu doon ceeb du noonu te loolu joxoo ko ko ceeb kese nga ko jox day obligé jël ceeb bi delluwaat ko di ko jaay su ko jaayee dootul am piri bi mu ko génne ci bitig bi am déet eh, xanaa miskin bi moom amul doom am na doom de mun na am doom bi ah bëgg na solu soo ko joxoon xaalis bi mu dem xottil ko su dee soo ko joxoon xaalis bi mu dem dem jëndi wékki solal ko ay doomam bu boobaa mu dem jënd ci pomme de terre jënd ci soble jënd ci kii ndaw si am am na soxna ndaw si yóbbu woon na ñawam ah, moom itam mu fayal ko ci moom ci boppam ala kulli xaal moo tax ñu bari wax nañ ni joxe xaalis bi moo gën waaye dangay joxe équivalent li nga doon génne ci ceeb wala li nga doon génne ci dugub ala kulli xaal li nga li ngay génn li ngay li ngay dunde moom ngay moom ngay moom moom ngay génne waaw su fekkee ne ne eh, ñun ceeb lañ ñu dañu jàpp ni ceeb la ñuy dunde lañ nañ jël loo xam ne équivalent ceeb bi itam ceeb bi ngay dunde moom ngay génne hmm? yaa ngi dunde siyaam siyaam du noonu wala parfumé moom ngay dunde léegi nga bàyyi ba ñu war a dem dem euh, génne azaka nga dem jëndi non parfumé am dunde woo ko de déedéet li ngay dundee na ko génne na ngay dundee na ko génne bi ngay lekk ceeb bi ngay lekk na nga ci génne bul génne bu gën a fort boo moom soo loolu sax moo gën a baax bu génne bu ko gën a faible génneel bi ngay dundee rek su ko defee ñu ngi koy jox itam ñu préparé wu ci su ko defee nga teel ko joxe ñu préparé balaa ñuy dem ci jullikaay bi su ñu demee ci jullikaay bi ba noppi nga fàtte ko walla nga joxewoo ko génne nga ko waaye génne nga ko mu ngi kii mais yóbbuwuñ ko ci seeni borom ba ñu dem julli bi ba ñëw kon am nga sarax waaye amu azakaay degré murum koor kon murum koor dafa bokk ci koor dañ koy génne jox ko faqiir yi jox ko miskin yi jox ko jirim yi jox ko ñi nga xam ne dañoo mënalul seen bopp dara loolu mooy philosophie bi su ko defee euh, loolu mooy muurum koor wax naa ne dinañ ko génne ci lépp nag lépp loo xam ne di nga ci dundee man mën nga ko ci génne mën ko génne ci meew mën nga ko génne ci beurre mën nga ko génne ci ah, tàndarma mën nga ko génne ci ah. soo déggee loolu nag ñu koy génne ci meew li dañuy dundee meew comme ñi naar yi di dundee meew gëlëm yi ak yooyu mun nañ ci génne walla pël yi nga xam ne dañu dundee meew ñu génne ko ci seen meewu nag yi ah hakaza lu mel noonu lu mel noonu waaw ala kulli xaalit da koy génnee ci li ngay dunde da koy dunde da koy génneel nag képp koo xam ne dundam yow la war yow yaa koy génneel képp koo xam ne majeur nga nag majeur na na ko génneel boppam bu ko génneel bopp na ko génneel boppam ku majeurugul nag walla ku amul bu booba boroom kër gi mun na la yóbbaale waaw na la waaye képp koo xam ne majeur nga te am nga yaa koy génneel sa bopp danañ génneel nag liir boo xam ne dafa juddu biig ci guddi sa danañ ko génneel azakay muur kon su ko defee azakay muur koor su fekkee fekkente ne fii dañu baaxe ci mudda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ ko def doon noonu def ni ñaari loxoom yi yu tedd yi du ko ŋëb te du ko tàllal ba mu kii da koy yemale su ko defee mu def ko sotti ko bu mu fees léegi kii ba ñeenti yoon su ko defee biñ ko xaymaa ci muddam bi biñ ko peesee dafay mekk am na yoo xam ne nee ñaari kilo yu manqué am na yoo xam ne dañuy wax ne ñaari kilo ak liibar la am ñoo xam ne dañuy wax ne ñaari kilo la ala kulli xaal li ci ëpp fii ci Sénégal ñaari kilo la ñu génne mooy ñaari kilo nag kilo ñaatal kilo trois cent moom ngay dunde ah kilo quatre cent ah kilo quatre cent léegi euh, ñaari kilo yow ñaata ñaari kilo huit cent nga jënne huit cent joxe su fekkee ne euh, kilo cinq cent nga génne génne mille francs moom ngay dunde nga génne mille francs su fekkee ne bu ëpp boobu ngay dunde nga génneel li ngay dunde nga génne su ko defee euh, ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla nangul ñu suñuy jéggal ñu suñu rëcc rëcc yuy feeñ ak yu nëbb yu ñuy tey ak yu ñu teyul yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa euh, ñu dañu dañu gàttal gàttal rek ndax euh, ni mu ñëwee dañ ko gàttal waaye li ci des yëpp euh, lu ci manqué rek incha allah euh, ñeneen dinañ ko mottali parce que imam yi dinañ def seen xutba yi ci rajo yi télévision yi incha allah euh, yàlla nañu yàlla may tawfiq ak taysir bi jaay sayyidu du sallallahu alayhi wa sallam di sant ñi ñu doon topp ci tafsir bi ak ñiy woote yépp yàlla na leen yàlla nangul yàlla yàlla nangul te nangul ñu liñ lépp lu luñ ci juum yàlla nañ ko yàlla jéggal euh, lépp lu ci baax yàlla nañ ko yàlla nangul bi jaay sayyidu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu ay koor yu bare bare bare ñu koy fe teg fe eh, fekkee ñu koy teewee di ko woor wa ànd ak wér ak wérle bi jaay sayyidu bi sallallahu alayhi wa sallam yéen itam ñu ngi leen di sant yéen waa TV ndax wax dëgg yàlla euh, lii dafa remplacer. nit ñi li ñu waroon toog ci jumaa yi di déglu tafsir wax dëgg yàlla dinañ toog seen kër ngeen jëli leen seen tafsir yi euh, fépp nag ngeen di dem wax dëgg yàlla di jëli ay ay tafsir ay waxtaanu koor ak lépp loo xam ne dafay jëriñ jullit yi ngeen di ko indi ba ci seen salon yi ba ci seen néeg yi waa ci seen poche yi ngeen jox leen ko ñu ñu ñu ñu seetaan ko niñ niñ ko bëggee kon yéen itam yàlla na leen yàlla fay yal na leen yàlla may télé boo xam ne ba ñëpp di seetaan boo xam ne ay comme télé national yi nekk fii yàlla na ko yàlla def al international yi fi ne yàlla ko yàlla def bi jaay Seydou sallallahu alayhi wa sallam euh, itam fier fierté ngeen ci aan ndax lépp lu xew ci aan euh, ci mairie bi ci lépp euh, jàng yi conférence yi dinañ leen ci gis ngeen jël ko distribuer ko jox ko ñi ko ñi ñi koy consommer فتبارك الله يلنا لين يلا فاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته